Nega, mais sa miserita paradima saibala gu farmaren kiela parmi nous. Yéen a ngi ànd ak suñu people ci bi ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa su ne ah nee naa la pendant am na ay saytaane ak fimisteek rambaaj yu génn naan bii ju ngoone day jël Mame Ndiaye Savon di ko présenté ay góor <laughs> bisu yaa am fulla nag te am fayda ak personnalité ngoone mu nga def rouge noir xoola di fecc sonw moomoo jemba man dama bëgg nit nga am classe am personnalité ak dignité gis nga bu ñuy wax ci yow lu ñaaw defal sa sañse bu am jom di déglu sa son di ko enjoy bijo ngay déglu son ba def euh, rouge noiram comme dañoo nekk ci dëkk boo xam ne Sénégal nit ñi dañoo bon soxor iññaan iñañati bu mbir amee ñu jël ay nit di leen ca wax ay wax yu ñaaw ci ñoo xamante ne seen pusa rek la ñu yoroon di defar Bijou ngoone ku ko xam-xam ne lu xew ci réew mii de koy ñaw ba mu ne cooj te bal du tàkk dara du jug kenn du ko yëg ah ngeen ne da ngeen koy yàqi Baba Jaay waaye Sénégal yéen soxor soxoor nag waaye tey ngeen na xam ne eh, Bijou tigre la Bijou ak a mat li mu doon doon tigre yéen du ngeen bàyyi soxor ak iñaan Sénégal nag lenn laa leen bëgg a wax fi mu nekk nii comme nit ñi dañuy lekkante di la seeñu nii yor sab yax di ko seeñu nii te munoo ci dara yar leen ay xaj ku nekk jëlal sa kër xaj nga yar ko xaj am na kolare du wore jikkoom baax na dina la sàmm dina la aar te saa yoo yegg see ci kër gi xoola mu akolaat la mbëggeel gu sincère la lay woon ndax nit ñi hypocrite nañu égoïste feq bon soxor iñaan iñañati li ñuy wone li ñuy xeeñ di woowuñu ko waaye Sénégal yéen a soxor may wax waaj a génn nee na yow biisu ñu ngi ñëw sa kaw ndax xaalis bi nga yor ñu ngi ñëw xool fan nga ko jëlee waa dangeen a gis biisu mu toog di tëdd di nelaw wala mu toog di grand place wala muy waxtaan Bijou Ngoné ci lan ngeen ko xamee lu dul ci liggéey waaye yaa xaytimu laa naa ku liggéey nag bala la fay fekk fekk la fa muy sa wërsëg yaa moom xanaa kon moo moom li mu yor et eh, Bijou lépp lu mu yor moo ko moomaa waaye du ngeen bàyyi nit ñi ngeen di xoqatal nag di leen ñooñantal rek Bijou jàppale na Mame Ndiaye Savon woote na téléphone wàcc waslu ci àqam def li jullit ak jullit di def te yéen ngeen ne ay jullit ngeen man dëkk boo xam ne dañ ay jullit ngeen bu ajjuma jotee ñooy fees dell ca jàkka ya ak ca jumaa ya waaye yéene wante wuñu jàmm bëggante wuñu bëggante wu leen yéene léegi xam nga nu ngeen di def ku nekk yaral sab xaj xaj du génne say audio du la duulal du la sosal du la nettalil du la fenal maam Njaay amoon nga fi xaj tuddee tuddee ko savonné lu la ca teeyem sa xaj boobu nga yor lu la tee yem ci moom doon xarit mu doon sa xarit nit ñi dañoo foo yéen biisu ngoone mi da ngeen kaa mën a yàq Baba Diagne kii di kii liggéey démb tey toog a ñëw da ngeen kaa mën a yàq ah nee naa la waaye lu wax ji bëri bëri bëri coow li neex neex neex xoola DJ Yves <laughs> DJ Yves a dëgër fit DJ Yves bu suñu people TV tey eh, tey eh, animé guddi gi la gis muy tëgg sabar waa ñun teenoo jaay Sénégal nag nanu jaay Sénégal nag ku ne jël sa wàll ngeen ku ne dem xam looy def DJ Yves yematul ci animation tëgg sabar lay def tëgg sabar man de bi ma ko gisee damaa jàpp sama gémmiñ ma ne waa kii tëggkatu sabar la wala animateur ah wala yow dang ñoo nëbb sa bopp polyvalent nga <laughs> eh, mbay ma ne ko ndakaaroo ngay jommi ginne yaa wàcc si ku nekk ngay jommi waaye man dama joomi man dijje if laa gis mu nga yor galan ba di tëgg lu tëggu ci temps ànd ak tigiring temps di tëgg muy neex ma ne waa kii animateur bu guddi gi la wala moom léegi tëggkatu sabar la ah waa kon baax na ba mu sotti waaye daal lu ma leen munti wax mooy yar leen xaj xaj yi am nañu kóllëre duñu génne say audio duñ la duulal duñ la fenal duñ la waxal naka sudul noonu dinañu am sincérité ak fidélité xaj dinañ la aaral sa kër sàmmal la saytaane yeeg fimiste yeeg dëmm yeeg nooxoor yi yar leen xaj maam Njaay yaral ponkolu maamu xaj boole kook sabone moomu ndax na gaa yaa ngi sa kaw te bàyyeeguñu la de <laughs> Sénégal metti naa dundee Sénégal ngay nekk di dund te gis nga man lu ma gën a metti nag ci sénégalais yi xam nga mooy lan ñi mën a liggéey mën seen liggéey di ko def duñ leen jàppale xam ngeen Fat Diop moomu di def euh, di defal waali kër Fat Diop xam ne mooy nekk ci ginnaaw waali di ko këral xam nga Fat Diop dafa mën a woy lool am talent ba pare dafa jàng woy nekkoon duuta sekk ak fu ne mu jàng fa ay woy xam nga ku waali sekk jël teg ko ca ginnaaw kooku mën naa woy kooku woy li woy li la faat jooba naa woy kooku woyli woyli la faat jooba génnee son bu neex gis naa ñu invité ko sax moom ak euh, moom moomu jóge Jurbel kooku naan ñu naan mooy Walide xam nga Sénégal ñooy jël muus di ko jay di ko jay di ko jay ñu nga invité euh, faat joob sax mais fësaluñu sax faat joob mi nga xamante ne mooy liggéey liggéey bi fukkis ci Walide rek Sénégal ma oh non Sénégal métti naa dundee dangay mën a liggéey am capacité man li ngay def kenn du la jàppale. xam nga ñan la ñuy invité kuy dof-doflu di def yëfi comédie koo xamante ne xamul dara bu génnee moom la ñuy euh, challenge di ko ree yéen Fat Diop mi sonwam bu neex bi mu génnee clip ba rafet lool mu sañse fa sañse yu am jom xale bi nga xam ne ba jàng woy jotee daa dem jàng woy tarbiyu musique ba tey mu mën mu mën li mu def mu mën li muy def mën mbaar mbëpp ak mbafar xam fa mu koy taaj ndax nee naa la ay woy dangay xam fa mu koy taaj moom mu xam fa muy taaj ay woyam taaj ko ci taajukaay bi riig ko ci riigookaay bi waa xale bi du ngeen ko jàppale nag singalam bu neex bii nga xamante ne xoola mi ngi tukkal àddina ngeen wax ci yéen journaliste yi waaye du ngeen ko def <laughs> aka ñoo mën a tuutal nit li ma métti ci réew mi métti waaye nag dama bëgg Bijou Ngoné moom ngeen teg ko rek ni dege ndax Bijou Ngoné baax na gën na riche na am na respect réciproque te pusaam la yor di ñaw pusaam rek la yor di ñaw deful ci réew mi naka sudul noonu wala luñ koy xeebe liggéey rek lañ ko xamleel pour yéen ñuy wax nag naan Bijou Ngoné ñu ngi sa kaw fi ñu fi nga jëlee sa xaalis xamuñu ko yow yaay présenté Maam Ndiaye ay far yéen a moon wax ju ñaaw Maam Ndiaye di magum jëmm xel ma Maam Ndiaye am sax mun naa am Bijou euh, amu ko Bijou di présenté Maam Ndiaye ay góor du ngeen bàyyi wax ju ñaaw ak wax ju salte ju bon te Bijou yor njaboot yor ay doom yor famille yéen lu ngeen mën a dégréner nit ak di déstabiliser nit Sénégal ñu ne nii lañuy dundee di déstabiliser vie wu jàmbur la ala kama sala na xiraatu sa sabali bref nee naa la waay Sénégal la neex nag Sénégal non Sénégal dafa neex ma euh, Mamy Cobra dafa génnoon di wax ne Mama Diatta dafa wax si moom bo ba xaw cee mer xam nga parfois billaay nit parfois mu wax ak yow benn ton boo xam ne danga nga yaakaar sax ah daf lay yàq mais yàqu la man sànq maa ngi seetaan euh, Mama Diatta ci TikTok bi mu ne moom du yàq mami Cobra parce que mami Cobra dafa créer employé dëgg la mami delloo sil sa xel mama jaata du la yàq mama jaata xam na sa te xam na yaay kan te xam na ne ci dëkk bii ñu nekk tu es quelqu'un dans ce pays yow danga nekk référence ci pays bi ñu nekk ndax fexe nga ba dégg fii ah mami Cobra créé na employé yaa ngi liggéey créé nga société ndax am na ñuy liggéey ci yow nga di leen fay donc delloo sil sa xel laa lay wax Mama jaata daf la doon wax rek ne que boo nekkee ci euh, réseaux sociaux yi nit ñi xam la am fuñ la teg bul di saaga ndey ah ci ay kàddoom yi mu wax demantir na nee na moom du la yàq te effectivement Mama jaata xam naa ko ci écran mais moom du nit kuy euh, wàññi personnalité wu nit déedéet ku nekk da nga koy waxal jikkoom donc mami maa ngi lay ñaan bu fekkee am nga numéro Mama jaata woo ko ngeen waxtaan waxul ci yow lu ñaaw nit ñi parfois ñoom ñooy jaxase ba ba ba nit telle sorte que ne nit ki ah dafay bañ kii fekk defu ko dara donc mami Cobra maa ngi lay ñaan bu fekkee am nga numéro ma mama jaata nga woo ko ngeen waxtaan àddina amul solo Sénégal raxasaat leen Sénégal nañu raxasaat Sénégal ñi fi bokkul ah ñu defaraat toogaay yi ñuy wax wax ñu ñaaw nañ defaraat toogaay du mane ne ñi fi bokkul ñu génnee leen de ndax am na yeneen dëkk yoo xam ne am na ay sénégalais yu fa nekk loolu moom duma ko wax du ma ne ku fi bokkul ñu gëna la waaye nañu raxasaat Sénégal yàlla ndi ko ba mu set amaat Sénégal gu bees waaye Sénégal gii ñu nekk moom non Sénégal gii ñu nekk moom Sénégalu lekkante la Sénégalu lekkante ni ay jën ndeysaan maa ngi seetaan Griff juuf ak euh, Awa Balde mu wax lu rafet ci Awa Balde ndeysaan ne ko sama oto ba mu accidenté yow yaa ñëw jox ma xaalis te xam nga ne yor naa xaalis gis nga nit boo mu nee dimbali sa nit te yàlla tax dimbali ko te yàlla tax Sénégal jàppalante leen bàyyi leen waxante lu ñaaw li man moom wax dëgg fa yàlla man aw ma xarit aw ma àndandoo man sama liggéey sama xarit sama liggéey sama borom kër ah ak sama seku ya ca kër ga ak picc yan nga xamante ne yàlla boole na ma ak ñoom ma leen di jox lekk man ñoo ñooy samay xarit waaye aw ma xarit aw ma àndandoo lonkoowuma kenn diisoowu ma kenn man daal lu ma jaaxal ak lu ma metti borom bët bu rëy bii borom mbaar mi laa koy diis mu faj jàppalante leen bàyyi leen waxante lu ñaaw li man moom wax dëgg fa yàlla man aw ma xarit aw ma àndandoo man sama liggéey sama xarit sama liggéey sama borom kër ah ak sama seku ya ca kër ga ak picc yan nga xamante ne yàlla boole na ma ak ñoom ma leen di jox lekk man ñoo ñooy samay xarit waaye aw ma xarit aw ma àndandoo lonkoowuma kenn ah diisoowu ma kenn man daal lu ma jaaxal ak lu ma metti borom bët bu rëy bii borom mbaar mii laa koy diis mu fajal ma ko ma sant yàlla Sénégal defaraat leen jikko yi te defaraat toogaay yi bàyyi leen yàqante gi waxante njaajaan njaay li bàyyi leen ko ay julit ngeen nee ngeen ay julit ngeen julit nag du yem rek ci làmmiñ danga koy jëfe bëggante leen te yéene wante jàmm respectante leen ngeen mel ni ay mala mala sax ni ngeen di jëfee duñ ko jëfee man gisatuma benn mala buy xeex mbaa ngay xuloo waa léegi le monde à xanaa ah moo tax nag ma ne leen yari leen xaj yi <laughs> xaj da moom à tout moment moom dalay dalay couvrir moom xaj daay lépp lu yàlla bind si àddina xaj ci gën a baax xaja lay couvrir ci àddina ba boo naroon a dee sax moom mu joxe bakkenam yow nga toog moom mu dee xaj xaj ngay dee topp la ba ca sa bàmmeel di la jooy nit ngay dee mu la ba ca armeel ya gas ba mu xóot dóor la ay peel ba pare di wañeeku naan la ñaw nit la dara di dal mu yéene la kon toog fa mu toog naan ñaw bëggante leen te yéene wante jaam àddina amul solo te encore une fois ku fi nekk ci dëkk bi yor pusaan di ñaw yéene leen ko jàmm bàyyi leen biisu ngoone mi ngeen di tuumaal tuuma baaxul yéen Bijou Ngoné xanaa xaa gisuleen ko ne moom dafa yàgg liggéey man Bijou ba ma ko xamee ba tey ci liggéey laa ko xam ngeen nar rajal doomu jàmbur ji di ko yàq waaye bu leen seetaan sama vidéo ba fàtte ne ñu ngi le soleil dexu maam Sanché Adams ñu fay jaay gàmbaas yu neex crevette yu saf dorade yu neex xoola tout ce qui est langouste Cameroun sigal yooyu noonu yëpp dañ koy def grillade yu doy bu leen fàttee ñëw daal di jàkkaarloog mbeex mi rek di lekk muy neex rek ñu leen koy servi sama gaay tuuma baaxul bàyyi leen ñaaw làmmeñ góor kenn du ko tuumaal waaye nag yow DJ Yves bett nga ma xaw ma woon ne tëggkatu sabar nga kon nag nee naa la ah tuuma ma xew xew fii ci euh, somon rek dinaa la woon nga tëggal ñu ko ndax léegi moom naa la wutal ay dat yu xeere comme ni ko Maria Sine amee Maria Sine nee naa la ay datam yu xeere la am dat yoo xam ne mu ngi ko war a joué yal nan ko joué ci jàmm ak salaam ndax ñun sa jàmm mooy suñu jàmm am nga suñu jàmm am suñu njëriñ yow Marie Yacine may sa biige waxoo ñu lu ñaaw defoo lu ñu defoo ñu lu ñaaw tuutaloo ñu xeebaloo ñu duggoo ci ay détails wax dëgg social rek ngay def am nga suñu jàmm am suñu njëriñ Marie Yacine série soxna sama vidéo xoola bere fag yaa xayti mulaanaa waru ko a am ah doy waar